dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéene a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gi di enquête les écoles libération ñu xëy di ñu xamal nan ñu ki nga xam ne moom la njëkk a gis jàngoroy coronavirus ci Sénégal moom nag daat nañ koy faj ba mu daal di wér ni ki démb daat nay génn hôpital ba te keneen ka nga xamante ni nag maanaam moo sa toppoon kooku tamit léegi tey mu wér loolee lépp Abdoulaye jiw saar ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram ci réew moo ko xam ne nag ni ki démb waaye nag teewul ma ngay wéy di ñaax askanu Sénégal ngir nag ñu gën a jël seeni matukaay maanaam jàpp ne am na ku ñu faj rek Sénégal yi dañoo war a dellu ca la ñu nekkoon jamono ji nag cet gi nañu ko daal di yokk ba pare di aar suñu bopp ubbi suñuy bët yéen kaay gi mu ñu xam lan ñu archevêque bu ndakaaru ni ki démb Abdoulaye Diouf Sarr seeti woon na ko ngir nag lu jëm ñu lëngoo ànd xeex lépp loo xam ne jëm na ci jàngoroy coronavirus ji archevêque bu ndakaaru ci yéen kaay gi di enquête moom nag la mu xamle nee na jamono ji daal moom dafa jàpp ne askanu Sénégal ba léegi ni daal maanaam mbir mi ni ñu ko war a jëlee dëggantaan jëleewuñu ko noonu maanaam ak sàggante ba léegi nii man ka cay te jàngoro ji dafa nekk loo xamante ni fulaak fayda kenn ku nekk war na ko se daal di wane coronavirus bi soo moytuwule nag dana tax match yi nga xamante ni ñooy am ci déndu Afrique maanaam ñu daal di koy dàq wala ñu daal di koy annulé benn yoon wala nag ñu koy football ci huis clos maanaam football boo xamante ni kenn du ko fekke njiitul kaaf moo xamle lu ni ay Aïda Mbodj moom nag dafa jàpp ne taxawaayu Diouf Sarr ci xeex lépp loo xam ne jëm na ci jàngoroy coronavirus ba xeex ba nag dafa daal di des ñenn ñi sax mel ni lu namm Awa Marie Coll mi nga xamante ni amoon na taxawaay bu am solo ba jàngoroy Ebola duggoon ci réewum Sénégal yéen a gi di Les Échos mu ñu xamal lan ñu maître Abdoulaye Wade moom tim daan wax parti socialiste ñu dakkal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum politique la waral mooy jàngoroy coronavirus ji Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu coronavirus bi kay jamono ji nag mooy dicté ab luwaama maanaam coronavirus bi tax na lu bari soppeeku ci réew mi tax na ñu bari maanaam seeni agenda politique ñu daal di koy teg si suufa yéen a gi di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu soo moytuwule nag ay garab dina daal di manqué ci pharmacie yi ndax bëri na maanaam garab yoo xamante ni yu doon am ci àdduna bi Chine la doon daan jógee yéen kaay gi di libération mu xëy di ñu xamal naan ñu jàngoroy coronavirus ji daan nay dugg Cameroun ak fi nga xam ne mooy Togo ñu bàyyi mbir moomee wax ci Mamadou Diop mi nga xam ne mooy directeur général bu ISEC yéen kaay gi di Les mu ñu xamal naan ñu am na ñuy wax ne porté wuñ ko plainte waaye plainte boobe kay lu am la ñi nga xam ne ñooy policiers yi dem nañ sax ba ISEC waaye fekk ñu ko fa ñu jot faa bàyyi nag la nga xamante ni moom mooy boobale convocation yéen kaay gi di enquête moom ti mu daal di xëy def nag ab dossier bu am solo ci ñi nga xam ne maanaam ñooy jigéen ñi ak seen njàmbarte ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy am ci askan bi rawatina jigéen ñi nga xamante ni ay yaay lañ ba pare nekk ay baaya yéen kaay gii di Les Échos mu ñu xamal lan ñu Baara Ndiaye mi nga xam ne moo jiite maison de la presse ba pare nekk maire bu meewaan ginnaaw kàddu yu mu yëkkati woon ci Aïda Mbodj Aïda Mbodj nag maanaam yëkkati nag ab citation loole nag daat nay tax Baara Ndiaye génn communiqué waaye nag ay waxam dafa mel ni jamono ji maanaam daf saa sott nag ndox mu sedd journal bi nag daal di wax tamit ne Baara Ndiaye nee na ma ngi xaarandi loolee nga xamante ni nag ab plainte la jógee ci Aminata kaay gi xëy daal di wax ne OFNAC nag maanaam njiitu réew mi di président Macky Sall ginnaaw bi mandat Seynabou Ndiaye Diakhaté jeexee daka faa daal di tegaat daal di tabb Assane Ndoye mi nga xam ne nekkoon na ay jamono inspecteur général de police Abdoulaye Dianko di ab magistrat ak maître Awal Dieye ak Babacar Ba nekk ci société civile bi yéen kaay gi di sunu làmb mu ñu xamal ñu tey ji nag bay boo ngeen xaar ay daan yu méttee méttee métti maanaam nag waa CNC jël ko lal ko ci ndoddul ñi nga xam ne ñooy arbitre yi ndax nag ñoom arbitre yi ci boppam fan yi ñu génn dañoo amaloon ab gréwa ndax nag jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom la ñuy dund tey ji nag journal bi nee na daal juróomi daan boo moytuwulee danañu ko daal di lal ci seen ndodd